خبرت غالي المتطوع نقول اول درع اول شي شنو الفيهم كيما بيتو خرجوا من الركبه الى قدر يعني wóolu waay dafa lii rek ma xool salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi na ngeen def waaw sant rek sant bi waaw Diallo Diallo Diallo mayga mayga Layang deh def waay sant bu ah yéen a ngi si wàcc waaye tabaski bi waaw yaa gis ah, bi xar bi moom lu mu lu mu ko bi xam nga man lu di cher cheru xar yi yomb laa koy jaay wax nañ ma ko wax nañ ma ko loolu wax nañ ma ko bii bii da ngay indi deux rek jaay deux ngay indi deux rek deux cent xam nga xont dafa cher jàlloo jàlloo gëñ na taw yoo xam nga loolu bu baax waaw loolu yëpp la la rek na rek du la baax tabaski la wax man de hmm. yow lan ma fii laa ñëw nit ma jama ci jàll bu fa dee da la defal xewal waaye fi mu ne nii de cent rek la yore ta xaru cent la bëgg xaru cent nga bëgg xaru cent rek la bëgg xaru cent nga bëgg ta yalla tax xaru cent rek nga bëgg xolal xar ah jàll jàll bii moom baa kii na xar bi gis nga yiri di band band lu di duf duf ah. bi mo leen gën bi mo leen ëpp yàqu bi ba ba du jugurus jugurus yo xolal xar xolal xar bu baax da xaru yalla boy dem lay topp nee na dee na ñun ma ñun ma xar xar yi nii ñooy gën sa xar yu mag yi nga gis nii loolu wax nañ ma ko. booy dem mu lay xool fokk 105. ah bii de fokk na fokk 105. xam naa bu ma ko yóbbulee. sama sama xar bi moom xar ñetti jabar am. waaw ah, non non benn laa yore benn rek benn rek ah yow tam ñun ay benn góor mais xar bi moom <laughs> góor benn jabar lañu. <laughs> xar moom. ah góor benn jabar lañu. xar bu garaaw bi xoolal. waaw ah, xam naa ne fi mu ne nii sax duñ fi nekk sax di di waxaale noonu. bii man woon man wóolu naa la ndax bi ma yebal si yow. wóolu naa la ko gisee nii. Mhm. ak bëgg vermicelle. xar bi day lekk vermicelle ak pizza rek la bëgg. jàll <laughs> bu ma rey waaye si tuuti sprite. <laughs> wax nga dëgg. mais baax baax du mandi boo ko joxee sprite. non du mandi mu toll ah. la ñuy lekk mais kii day tàmm lu muy lekk ay vermicelle ak ay spaghetti ak bu kenn xamul. waaw ah, kon nag xanaa loolu moom moo jëkkër kii rek. waaw am nga buum buñ ko tënkee. waaw waaw. waaw yow Diallo yow nan ngay jaay te am buum. Ah. nga ay rëbb ay vétérans dañu tiit. lépp la ñuy lekk lépp la ñuy dagaan ñun ay mag lañu ñun bu ñuy dem gi maa ngi jégalu may manqué buum. bu dëgg yàlla loolu duñu boole. loolu duñu boole yow moom billaay góor gi yow kàppoo nga. nga buum a jugurus nga fa jox sax. man sa xar gi sa xar gi bëgguma ah waa Diallo yow tam boo ma naree jaay xar bi tamit. dama xam ne xar bi dafa baax rek. ah waa takkal ma ko ma compter xaalis bi jox la. génne te ak a nangu kii sama nga koy jàpp boo dem lay topp. nii de lépp man na lépp man na fontaine fontaine noonu la jërëjëf waay man na jërëjëf waaw kon ñu def noonu waaw xam naa am na sama benn xarit buy jóge États-Unis sax fii lay tabaski

xam naa ne am na mari moom defal defal nii nee naa la champion si si si balaa indi xaru dëwën kay pour yar ngay nil ma xaru julli ren. soxna Mbaye di nga gis xar bii nga naan ma ay pour gii nii ma andil la ko tànn ko sa daral nga jëndee ko cent mille francs nga may saltel naan ma ay euh, pour dëwën toogal foofu sax am na sa morom ñu ko amul. eh nga ni ma lan lii ren yow fi mu ne nii est gis nga xar ba pare sax. noppil danga ni ma lii laay julli ren lii. waaw xalaatuma ko ci kër at. xam nga la laa lay yëgal xaw ma foo demoon ba dëmbijee sa doomu xaw ma wuy ma tekki xar bi ci biti wala yéen ñaar ñëpp ci biti kafu ma ci réew ma ci nag nga jàll dégg ma noppi jàll xam nga sama yoon nekku si jàll jàll mii di jaay ministre yeeg oh. président yi moo ma jaay xar bi ni euh, cent mille jaay subaa naka jam doy na wax ju bëri ji mënu ma ko yow sama yaay barki démboo ñaay la fi jógee amul lu ma waxul soxna Marie est ce est ce xool nga xar ba pare. pooj bii lii la xeet ak du ko yóbbu. waaw yow kii xar bu tilim bii. yow kii buñ mën na si am monsieur bu baax. ban monsieur. waaw lii la dem peese ji ko sa moo du jàpp sax moom ko gën a am. dama ni la nijaay sa xar bi na ko jógee na fi génn man mënu ma wax ci bëre ji. yàlla ci taal bi laa jógee dama sonn. yàlla appul ci yàpp bi de yow rek la si soxla. nijaay te fi mu ne nii jaayante naa ba ñëw andil la xar aw sax jërëjëf saw sama digg xam xam bàyyi ko mu saw bàyyi ko mu saw bàyyi ko mu bàyyi ko mu sow nijaay wuy ma foowuma kat nijaay foowuma kat yaa ngi may bëgg yëngal yow gisoo sama noon yi si kër yi si mbedd bi yow yàlla ëppale dama ne lan laa nii yàlla yàlla na génn bàyyi ma woon la bàyyi rek bàyyi ma woon ne naa ni soxna Marie ma ñëwee dana bég déglul rek ah salaam góor gi waaw waaw njaboot ba ngi fi ñëpp a ngi si jàmm ngi si jàmm ñu ngi si jàmm alhamdulilah imam waaw waaw waaw waaw moom te fi mu ne dañoo woor sax fi mu ne dañoo woor sax naka naka tàngoor gi ah ñoo ngi si kawam nii rek si jaamu yàlla ça va bien alhamdulilah waaw man coow li may dégg lu lu xew ni imam sax yàlla wote yàlla moo gën a gaabu nit nag xam nga fii dara ñu naan jàll fa laa jëndee sama xar yii mu xeeb ko imam imaam xaar gi dara nekku si. imaam fokk ñaar la. ñaar la. imaam xar bi xar bi ma ko sax mais dafa fekk ni man xoolal koñ bi imaam xoolal kër gi xoolal gett gi. Ah, ay rakkam. Abdou Ndiaye bii yaa ko la dañoo takk ay xar yu punkal man lu tax mu may indil doomu xar bi xoolal xar bi imaam. suñu borom appul si ci yàpp gi si tur deret gi rek la àpp. da ngay dégg sa borom kon da ngay dégg. nga naan ay am nañu xar xar mu ndaw xar mu rëy suñu borom tuuti na dina si boo xoolee kii noppam yi mat battul wala ñuy déggee ni wala loo xam ne kenn yooyu ñu tamit man amul góom te maanaam ndax bu matee rek matee tamit si nga lu war la loo xam bii moom nga baal ma de mais gëw na six mois bu wax loolu si xar moom mat na moom dëgg yàlla xar moom suñu borom appul si yàlla tour de tour de rajo rek la si am tour de rajo si maanaam boo defee jaamu yàlla benn jaamu yàlla gënul màgg suñu borom pour beneen te ba mujjee si beneen. Mm-hmm. ñee ñoo xamante ne daañu taw am ne daañu tabax si seen kër ay ko mm-hmm. jaamu rek bi am ngeen yàlla. d'accord xam naa nag sax man nag may nga. waaw waaw imaam maanaam. xam naa dafay am ay yeelu maam ak yeelu. dana ñëw yeelu imaam la sa xol sedd dana ñëw. dinaa wax sama Mansour. mu mu andil la eh, yeelu yeelu imaam dana ñëw. imaam jërëjëf waay imaam jërëjëf tamit ngeen booloo le leeral gi bég naa si imaam la encouragé ko bu baax yow tamit non fi fi fi dalam dalam na ko man sama xar mi sax xam naa bii bu ko ëpp ñoo tolloo ah imam ma ma gis sama imaamu koñ bi. ah waaw ah, waaw fi ne nii imam bu rey sax yóbbaale na ñëpp yóbbaale na ñëpp. dama sa borom kër la waxati. yaay jigéen ci sama sama kii. nijaay loo bëgg rek. comme que nan nga ko gisee. bii la ñuy jullee. incha allah ci atum rey. nan yóbbu fi fi mu ne dalal dalal nangu dalal man sama xar mi sax. xam ko ëpp. xam naa ne ma gunge waale ba si buntu bi ne la rek. jërëjëf gunge waale ne ba si bunt bi rek waaw. waaw waaw imaam kontaan naa de kontaan naa imaam kontaan naa si leeral gi xam naa ni ngi def rek lu dul di la jaajëfal ñu yendoog jàmm waaw waaw na sa xol seen imaam na sa xol seen ah, xam naa daan daje jàkk jëm si kanam incha allah merci yaa imaam merci jërëjëf eh, xanaa rek di fàttaliwaat suñu mbokk jullit ñu xam ne tabak si ndigal la mu ngi jóge suñu borom si suñu maam Ibrahima buñ ko mettil na léger rek ñu julleendoo julle ko si jàmm mu jeex si jàmm jërëjëf